maa ngi gërëm di sant yàlla di gërëm les journalistes qui sont présents qui ne sont pas présents ndax lamb su egsee fii grace à yéen moo tax lamb egsi fii su ma feuille de route mooy maa ngi koy commencé ci Adrien Senghor tase naa ak le président de l'arène ak son équipe ñu toog waxtaan ci oh, tey moo woo promoteurs yi acteurs de la lutte ñëpp laa woo muy les associations muy le promoteur muy les amateurs ñoom ñëpp laa woo tey pour waxtaan ak ñoom taalal loxo ku nekk indi xalaatam xalaat bu mu indi luy demale làmb ci kanam Manga de ministre bi dafa am confiance ci moom parmi les 16 millions d'habitants mu fal ma confiance bu mu am ci man moo xam lu tax mu am ko ma ñaan yàlla confiance boobu yàlla bu mu ko tas donc wax ma ne liggéeyal ak askan bi yëpp ubbil sa bunte yëpp mission boobu la ma sant mission boobu laay def moo tax ma tey tey woo mbokk yi. maa ngi bugg a dem gisi CRG yi gisi le comité locaux yi liggéey ak moom waxtaan ak moom laaj leen seen problème yi laaj leen seen lu ñu jànkontoor parce que am na ay nit yu xam ne dañu bind si ne seen làmb ay quatre heures lay tas ñu di sàcc seen fas yi donc yooyu yëpp dinaa ko waxtaanee mais xam nga chaque go à ses réalités su ma demee suivant leur réalité loolu lay waxtaan ak ñoom ba xool ban terrain d'entente la ñu trouvé tukulóor yi tey ñoo nañ fi joolaa yi ñëw nañ fi parce que yem am na benn joolaa boo xam ne du bales numéro 2 indi na loo xam ne cette association moo ko def indi plan d'action yi yëpp ak lu mu nar a def dans la lutte traditionnelle donc maa ngi leen di gërëm suma jaam joolaay di leen sant bu baax a baax lii dinaa ko te fukki loxo ak juróom. je pense que c'est abordable quand même licence lutteur. nekkoon 5000 francs ñu indi ko 3000 francs yaakaar naa am na jéego yoo xam ne comité bi bu bees bi loolu la def. mbër yuy dugg si te kuy dugg si joxe 1000 francs loolu du amati moom laa njëkk a wax moom laa njëkk ñaan ñu may ma ko benn mbër du duggati di joxe ñaari téeméer su ñu dee foofu ay grand événement foofu cas particulier la yaakaar naa ne frais yu nekk foofu yëpp dañ ko waxtaanee wàññi ko c'est la même chose. su ñu tegee foofu ak grand événement amul benn mbër boo xam ne war nga joxe 1000 francs ça c'est fini dans le territoire du Sénégal. règlement bi benn la mais ku nekk dafa am loo xam ne peut-être mooy cosaanam moom laa la wax léegi suñu dem askan yi yëpp ni ci ni ñu fekkee dañu waxtaan ak ñoom be trouver terrain d'entente mais réglement bi benn règlement ci Sénégal. foo dem am na ay comités locaux déjà le président de FIMLA muy ma woo sànq dafa bëgg na ñëw fekkee réunion bi waa Mar ñëw nañu. les anciens lutteurs de Joal de Joal Fadiouth ñëw nañu seen président mu ngi fii euh, le président des anciens lutteurs de la lutte traditionnelle mu ngi fii gis ngeen ko donc je pense que tout le monde sont là aujourd'hui pour en discuter beaucoup de problèmes